yàlla ñu si mën a jàppale si yàlla yéen a def seen nit la si loolu si guddi ba Voilà.

waaw soo ñëwee ginnaaw Elton Elton xam nga AMG mari am na Elton bu rek Elton na soo duggee si biir foo laajtee mariage bi rek dina la wax dina la wax non non non. s'il te plaît s'il vous plaît. bu su feet la quoi bu su feet la s'il vous plaît. bu su teraanga feet la na moom na bàyyi yooyu leneen wala mi ne xoolee na am leneen yàlla da ngay xëy nag wala parce que leneen da ngay xëy. gaa ñi yàlla doon na ñëw. wala parce que leneen da ngay. ñii suñu nuyoo def nii rek am yoon. sécurité yaa leen ñu war a may yoon. papa ji ñëw na daa di siyee daa di siyee daa di siyee Alafaas wàllu fas. waaw Alafaas ñëw nañu. ñëw dugg. waaw. waaw. c'est complet. macha allah. merci beaucoup. la petite vraiment. alhamdulilah yal na yàlla mënti lépp. yal na ngeen ko muurloo. kon ñu ngi ci biir waaw bàyyi la yéen a yëg. jàpp.

ñu koy nangu si waaye lii moom siiw na yaa ngi ko. ñëw leen ñëw leen venez. ñëw leen. mari mari

photo wu ñun dañu ñëw pour ñu pour sécurité dañu ñëw pour photo wu ak suñu jabar. wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma

Ah, Masa portable. Administration. sunu bay dey bay day waaw bay day waaw waaw bay day bay day bi gi la ñëw jaare sa li nga Mbacke Baal Aïcha dama ne ana ñu doon war a dem Mariama dama ne ana ana ana tey fii yaa fi Papa Cissé tey bu ma gisee ne ku fi yàq ne alors dama bëgg ñëw taxaw na wuy ma yow ku ne xam ne nii Touba cérémonie yëpp waaye ku ne nii taxaw dama ne Touba yàlla dama ne voilà waaye ñu ñëw kon maa ngi daw dégg dama ne ah dama ne Tijaan la ñu noonu dama ne Tidiane a ngi noonu di mbokkam day baax di Cissé waaye Tidiane yow li ngay wax nii yaa ko moom ndax nag tey xam nga tey yéen a doole xam nga yaa ngi noonu ci ginnaaw yërmande la yàlla na yàlla yërëm yërëm fa la boo sa sax mi ngi si biir kon yàlla yàlla antul say bii ci zahir ak ci baat nee na nun famille bi ñu ngi ñaanal yàlla sunu jarbaat Pape Abdou Cissé bëri na xale boo xam ne. bëri na xale boo xam ne. am nga noo meloon. am nga noo meloon. wala situation dabe. wala situation dabe. kii moom la woon. loolu da dalu ba am. suñu kanam la juddoo. suñu kanam la juddoo. suñu kanam la yaroo. suñu kanam la màgg. ba ko yàlla betteel teraanga. dara soppeekoo ci moom noonu ay nijaayam kon fi jox na la sa cër ay baayam jox na la ay tàddam ay bàjjan waa Pikine fi teew ku ne mën na seere lool kon ñu ko ñaanal. ak Medun Diouf mu soxna Jabi Diouf seere. mais témoin laa gis nii de. waaw waaw yell na nag. ndax euh, Diaw ma Diaw Fara yàlla na maag moom ñu yàgg mu dégg lu nekk tamit nag ci sama jëmm waaye man ma dégg lu ne it waaye sëriñ bay Jaxate dafa am wax jum wax mu ne asal lu mu a awal ndigal te yaru yow di nga làkk bépp ak yow tey ak ëllëg maa la ko wax am lu olof Njaay wax sànq waxoon naa la ko mu ne buñ la tooñee nga muñ yàlla dalay defal ñaar mu yàlla dalay fayu ba pare fay la dalay fayul ci tooñ giñ la tooñ ba pare fay la ci muñ gi nga muñ te Marie Louise Diaw loolu la def wax dëgg fa yàlla ñun wax ci moom dañuy tiis gis nga ni maanaam famille lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy Ousmane Seck da cee mën daal tool dogal na gis nga nii dara baa ngi nii ma ne ma ne ma demal coach léppam rek ma am ci cër nag Marie day jàpp kenn ne ko kenn kenn kenn ñëpp wax Mari Louba waaye yaay bu sonn naa woo leen Ousmane Seck boo leen ko bu ma ñu tëju maa moom waxtaan en tout cas daal yal na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar jubóole ko ki nga xamante ne nag mooy Babou siisee ngaari njar meew tëmbal galaas def ci ndox mu sedd naan sa pour tooy ambiance amul mer mer ñun ñun ñu ngi bëgg daal yàlla jàmm yàgg ma jàmm Malick tu univers info Gallo je vous Amen.